waaw mais waaw mais xam nga tey jii bu dee règlement lañu wax rek réglement rek lañu wax règlement rek lañu wax tey bàyyi jii li du amateur accompagnant la mooy ni Siteu Siteu bu ma gaañee ku ma ci gaañ ci ñoom rek au contraire man lañu wax man lañu war a jox victoire mais victoire boobu soxlawuma ko victoire par point Papa Sow lan gaañ Siteu lan gaañ jox victoire yàlla bu moo ko am Siteu boo koy daan dama koy duma daan ko suñu bëroon moo duma ko daan ko waaw. loolu kay si auto loolu waxatuñ ko ñu ci procureur bi xanaa que jox ñu boo ñu convocation rek a def. mais moment bi surtout di fii ci noonu di jaay bu ñu ko joxoon victoire Papa Sow noonu lay réagir. ah mais ñun Papa man am naa samay mbokk. sooy mbokk fi ñu après fi ñuy jaar xam nañ fi ñu war a jaar ñun boobaa dinañ ñibbi lu ñu munu xëyee li ñu yoon may dañ koy def mais surtout moo la gën a xam ne munu fi am victoire moo la xam ne munu am bu doon doo dugg ci géew bi sax samay mbokk def gaañ ma wala nangam nangam mais moom ay mbokkam ñoo ma gaañ koo xamante ne doo jënd ticket da lay compter comme accompagnant surtout moo ma gaañ man su ma doon mbër bu yaafus laa mbër bu bëggul yomb laa fa laay naan joxe ma victoire mbokk si ma gaañ mais soxla ma victoire bu ñuy joxe mais papa mi mi ngi woon waaw waaw sànq répondre dellu si amul duñu prononcé ay kilifaam dinañ la déglu rek bu ngeen dégloo fii ak fii ak ki fan. Mm. xam kan lañ porté plainte. Mm. man maa ngi Siteu jotewuñ dara mm. Siteu sita Siteu jotewu ma ak moom salaamaaleykum wa rahmatulah jotewu wax dëgg yàlla. Ah, ñoo bëgg bu jàmm bu jéem si bi mais bu dee bu dee ban sant ma wax naa wax naa lu déborde sant ma ne wax naa Siteu. ay sant lu déborde non moom dañ ne man parewu ma. Ah, waaw su paasoo entraîneur parewul moo tax ma xamal leen ni moom biir bu rëy la fa indi ak ay ween. ndax moom ma wax loolu moo ne Papa Sow parewul moo tax mu doxalee nii yàq boppam may leen lu dul ay ween ak biir bu rëy indiwu ko fa foofu rek laa yem si moom te loolu la ñëpp gis ah. ah waaw ah, euh, wax dëgg yàlla ay kàddoom lu ñu rafetlu la ndax it bon keroog wax na li nga xamante ne mooy làmb wax ne li war a li war a ne ak lu mu mën a nekkee seetaan naa ko vraiment ma rafetlu ko trop ay kàddoom. pour man nag kàddu Moustapha Gueye yooyu la ñëpp war a waxee fa la làmb ndax làmb bu ñu am ba dem dem ba am système pay-per-view làmb di commencé defaat nii ñu bëgg ko yàq. kon am solo bu amul du neex mais seen comportement la ñuy wax. seen comportement du du kenn nag comportement sax jiit la ñuy wax comportement ñëw dimanche la ñuy wax mais kenn koo fa gis correct mais ay temps da gis sax mais mooy bëre faadal. dem si géwélu faada ñu tëggal ma ma fecc kafre dem mais ñoo xamante ni ñoom pour ñoom ñoom ñooy star yi moo dul yoon ñoom duñ star yi man loolu moo metti doon duñ star yi bon woo nañu woo nañu bi ñu woowee CNG aussi tamit dafa am lu xew lu waral lu waral lii moo xew waral li lii ko waral lii ko waral mais am na yenn bëri nu ko convaincu ku si mel ni ay rërëg ak lépp mais pour man ay rërëg li ñu def lañu war a def làmb dafa baaxoo boo dëkkee ci gox mbër moo du bëre rëg dafa war a ñëw CNG moom loolu moom lu ñu ko jox teg fay rëg dafa war a ñëw bàqu si li mu li mu def da ko war def caat mbokkam tout ça loolu amul problème CNG loolu loolu loolu du Thiès déedéet loolu du Thiès Thiès mooy bàyyi jiili fu mu nee ñu woo ko ne ko kaay yow li nga def ndax moom dafa bokk ci làmb li nga def pourtant nga def ko mais comme ay rëg ñu woo ko mu bàyyi entraînement am nekk ci combat nangam nangam non non bon reliquat nag boo ko déggee mooy làmb bu amee coow bu tojee nag CNG day day day tranché instant bi dina entendre ñëpp déglu ñëpp après doo ko mën a joxe reliquat yi. reliquat yi moom du lu ñuy wax événement bi moom passé na mais comme que coow dafa am dañuy leen gérer coow li ba pare après ñu jox ku nekk la nga fa am. mais li fi loolu ñoom la rek. loo euh, euh, ma loolu ñoom la rek Papa du Papa Sow du Papa Sow du du Alioune du Net Papa du Baboy li ma war a ak promoteur bi def naa ko mot sëkk. sëkk sëkk waaw. waaw bu ñu fayee bu ñu fayee reliquats ba pare ba seen pare ñun mu ñëw ñu waxaale combat amul problème ndax combat maag si dafa war a egg. dina war a bëre balaa balaa neer bi di toq dina war a bëre waat incha allah dañuy bëre. ah. bëgg non bëreeguñu. non dafa war a am ndax mu ñu nekk ba bëgg téye nit ñi nit ñi dagg seen ay ticket àq boobu noonu loolu baaxul <laughs> am ñu toog jënd si ay biir. mais xat. xat mooy lan. ça veut dire que parce que dafa mbooloo stade waaw est-ce que mhm. loolu. tamit man mobilisation bi nga xam ne da koo def. Mhm. dañ doon dégg papa Sow ñu ko doon xaar ci mobilisation. ak dégg mu bees ak yooyu. Mhm. c'est boo xoolee pratiquement nit ñi li ñu gis dañ ne moom moo mobilisé stade bi yëpp yëpp yëpp. est-ce que loolu loo xam ne tamit pénalisé na papa. ba tax benn moment sax. buñ ko biñ ko teree dara. mu gis boppam ba ne léegi moom biñ teree élément. parce que sa élément lañ teree muy góor. nga gis sa bopp ba tax ne yow loolu di ko def par force. dëgg la loolu wax ci dafay yomb trop. ñun fii yoo teg ay kaar kaar yu bari mooy unité 19 am na ay kaar Papa Sow mi ngi doon bëre 10 Ameth Doo mi ngi doon bëre 18 bu ay bekkaay xam nga ñun am na mbooloo. bien xam nga ñëpp am nañu mbooloo. mais am na situation yoo xamante ni booy parcelle bi demee ba làmb ja ñii dunoo ñii jël seen ay seet sorko tax it ay ñoo neex a nekkal. boo gisee bu daan ay site site di nga gis mbooloo mu bari ne nii pat ñëpp ma leen faral. war bi si fi doon ba bëgg a dégg waaw gi da nga naan non lii waa parcelle yi dañoo nekkoon ci souterrain yi génn. mais am na yoo xamante tamit keroog situation yi fa am ak mu manqué tamit manqué vraiment manqué manqué sécurité kenn kenn du jaay sa bakkan bëri nañ fa su être poisson yi comme comme àdduna mais situation ñoo xamante ni bi ñëw tig ngay sol sort t-shirt ak laafa mais tamit ñooñu seetaan suñu làmb ci bunt bi am nañ fa une heure ñu mel ni ay kaña. moo la waaye police moo tax booy non faale policier yi. yéen li xew si làmb ji gis ngeen policier noo mujj sax dugg ci biir gars yi dem moto jàmbur yi def nangam je m'en fous Caaroy ba Pikine magasin yëpp tëj mais Falang jaar na fi Mbaye Guèye Double Less Tyson Yékini ah Moustapha Guèye ak keneen ak keneen mais kan moo mës a bëree ko xamante ni kenn du am jàmm mais loolu dafa ñaaw te boo toogee yor micro bi da nga leen di sa man ñii laa am déedéet amoon ñii te pour man ima cité image am hmm. waroon na ko may bu bëriwul sax am ay milliards wala ay millions mais pas comportement bi. da nga yaakaar ni daa yàqu wala. ah waxuma dafa yàqu de mais daal bu moom bu bëriwul sax waroon na am xaalis hmm. mais pas nii. am na loo xam kenn du ko encouragé am na loo xam ne kenn du ko encouragé. Papa ñaari combat la ñaari ñaari ñaari ñaari ñaari question la njëkk sànq yaa ngi naan man bu ñuy bëri man doo bëri ndax man moo lafta man attanu ma ko ci njëkk mooy ñu ngi lay masaw mhm. ndax gis nañ ne mbër mu yaru la mhm. dëgg yàlla ni ku ne li nga xam nga yor. ko ñëw ci làmb wala ci réewante wala leneen mhm. kenn yéenu leen ne daal. mais que ñu yëpp dañ bis bi papa sa bisam la. Mhm. est ce que tam ab li kii wax sànq rek amul rëccu ci gérer bis bi comme bis bi sa bis la. waaw wax kii wax na ko dinaa ko am naa tuuti rëccu ci benn côté ne ma sañoon daal gaañu du am mais ni ñoom ni mu bëggoon ma reculer ko loolu as gor mënu ko. Mhm. man su may tëdd combat moo prépare combat boo xoolee damay nekk ci combat bi bu dee 3 mois 4 mois rawatina su may tëdd samedi bi war a jëm dimanche su ma yeewu beneen Papa booy gis moom laay indi ci làmb ji moom laay bëriwaale ba keroog jeex Papa Sow doog a ñëwaat mais tey jii tey mu laa la wax nga war a dem def say sarax Fadel taxaw ne doo fi jaar. waaw dafa métti quoi dafa métti mu leer yow kii ki lay cere nii ki lay cere nii tegu ko fenn furu rek tey ba kenam mais du yoon bu ñu war a wax kañ ci loolu la war a revenir aat. na ko bàyyi jiili baalu génneel baalu nit ñi àq loolu la war a def. mais ñoom ñoom ñoom la doon supporté. ak ak ak ak sama deuxième question mooy. Mhm. tey combat bi yàgg nañ bëgg ko. Mhm. dégg ci ci laa ñoom moom la bëggatul. Mhm. parewul pour bëriwaat ak yow. tey yow bi nga xam ne nga yàgg est a bëriwaat parce que nee nga doyuloo boo boo déggee exemple mooy dama ne la nit ñi dañoo dagg seen ay ticket di am lu ñuy xaar buñ sañoon buñ sañoon dañuy bëri. man li ma gënal mooy tey ñu xam fu fu muy mujj. mais moom ci làmb la ma fekk may bëre. moom ci làmb la fekk may bëre. man utuma pour bëre ak moom mosuma ut pour bëre ak moom bëre ak moom coono gi ngay daj rek jaru ko waxtu ak leneen bu utuma pour bëre moom mais dama ne comme que nit ñi dañoo am bëgg xom cooki fin ndax bandi cooki fin lay dee te moom bandi la fa la war a deewee dañ ko eggali. est-ce que le CNG tam dafa war a moom la ndax fi mu moo njëkk waaw loolu wax naa la man la CNG dañoo yaakaaroon ni. sanction yi da cee war a <laughs> waaw waaw ah, maanaam maanaam CNG bi ñoom jàpp na ni ay nit lañ jox lii ki ne toogal fii nit na ku mat la moo tax ñu bàyyi ko foofu mais bu dul woon loolu CNG lii dootu ko dalaat keneen beneen ku ñëw dana la jël ne la sa da ngay il faut nga xaar ba sa mbër ñëw ba teg ci mukaayam nga doog a teg sa sa sa sa sa sa ay maté matériel. léegi yooyu ñoo a mhm. a bi ñu xëyee ñaan ñu ko yàlla la xew tëngeej ñu ngi koy masawu ñëpp di jaale ko fa ma ñàkk ba kanam mhm. la xew ci làmb ji bu ñu xëyee pur xew na lu pur am na tëngeej ci football bi. Ah, lu raw loolu am na ah? ak Demba Diop boobu léegi dafa tëj. waaw ak géej waay tamit gis naa ko. waaw. kon du kon du làmb rek mais comme que ñun ci làmb la nekk nañ wax ci làmb mm-hmm. nañu waxaat mbër bu ne da mm-hmm. nga sensibiliser da nga da nga sensibiliser nit quoi. Modou Lo Ama Baldé. Mm-hmm. am na ñoo xam ne dañoo tiit ne mënta na ca arène parce que dañoo jàpp ne ñaari mbër yooyu. la ñuy dagaase ci mbooloo ak mbooloo yi dogoo ci seen i mbër. buñ ko fa defee bakkan mën na faa war. yow d' accord nga tax Modou ak Ama xaj na foofu wala déet ak yeneen combat yi. Balla Gaye Boy Niang. waaw léegi maanaam. lu ne xaj na démb lu ne xaj na arène nationale lu ne xaj na fa mais nit ñi nañ ko xajoo tey jii tey jii Ama Baldé ba nag paaso paaso fii Léopold daan ko dem ñibbi ci jàmm nangam nangam loolu amul problème ñoo ñoom ñoo war a sax dimbali Ama balde mu bëri ak Modou Lo ay si waa supporteram Ama Baldé na ci waxtaan na sensibiliser ay supporteram signature contrat ñëw def ko mu neex na mi ngi bëgg a yàgg ñoom boobu ba léegi lu jàpp mu yàqu lu ñu jàpp mu yàqu nañ dimbali ñaari mbër yi ñu ñu livré li ñu war a livré nekk ci leneen quoi. boobaa xam naa bu ci dayo combat bi. coono bi ci daj xaalis bi ci financé. mu bu mag a mag la combat bu mag la woon wax dëgg yàlla. dañ amoon yëpp lan ñu may ak lépp def nañ ko ci. mais rek sant yàlla rek yàlla moom ay programme bi ngi noonu quoi. mais Franc li mu taxawee noonu la xale yi parti lépp taxawee ndax maa yaa ngi gis ay ëbbali ñëw noonu fa ñoom booy siin ak ñoom Belendeek booy yëpp ñu woon booy yëpp ñëw noonu fa ñëpp wan ma ni ñu sa ginnaaw ma ngi moo tax maa ngi nuyu xale yi parcelles yëpp de A à di ko teg ci loxo roi de arènes mu Modou gis naa taxawaayam vraiment maay booy yow mention spéciale à Modou ak képp ko xam ne nitu Modou aussi tamit gis naa sa taxawaay quoi. ak gaal yi ak gaal mais mais Ile di Saam dafa yaatu Ile di Saam dafa yaatu Ile di Saam dafa yaatu am na ay ñu ñun am nañ ay di ñoo xamante ni suñu ay wóor la lañ bracité di nekk mbër sekk ak ñoom ñu ñu ñaanal diggante pël la ak séeréer. loolu amu ci solo Siteu waa Siteu day dem si ñu mu xam ak ñu ko miin ma dem si ñu ma xam ñu ma miin Siteu day dugg ci pël gi ñu koy jàppale dem saalum saalum comme sama mbokk yi mais loolu amul solo Sénégal yëpp benn la dangay am séeréer sëriñu séeréer sëriñu pël sëriñu saraxule sëriñu nangam sëriñu nàngam olof ak lépp loolu amul solo waaw ah, mais loolu àll rek da am besant làmb deret bi day yëngatu rek waa ah. waaw ni ngi jëfal ñëpp di ko teg ci loxo